asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa liggéeyu daara ju mag ji di mu jàmm cheikh ahmadul xadim bi cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké di liggéey mi ngi sori ñu toll nag ci war a tàmbali njàngale mi ci yenn ci wànqaas yi balaa yàgg loolu mooy sababas jataay bii amoon cheikh Mouhamadou Bachir ibnu sëriñ Abdoul Xaadir Mbacké yor kàddu sëriñ bi fegguk sëriñ Ahmadou Badawi ibnu cheikh Mouhamadou Fadal mi sëriñ bi jiital ci liggéey boobu ñu yëkkati ay kàddu yu leeral mu jëm ci tàmbali liggéey boobu di jataay bu amoon alxames fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru gàmmu atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ci ati gàddaay gi dëppoog 13 octobre atum 2022 ci Touba Daaru Minan ci teewaayu Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xalif général des Mourides bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi lazi hadaana li haza وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ci ndigalu sëriñ bi yëkkati ay kàddu yu gàtt jëm ci bokki jullit yi ak bokki taalibe yi kàddu yi ne li ci jiitu mooy sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di sant sëriñ Tuubaa di ñaanal di ko ñaanal moom mu yàgg fi loolu te ànd ak dolli suñ borom dolli kàttanam ak wéram ba leen bëgg liggéey Sëriñ Tuubaa lépp mu sotti ni mu ko bëggee kàddu yi nag li ci jiitu mooy kàddu sant rek ndax liggéey bu réy bi nga xam ne ba yàlla defee ci suñ borom teg ko ci jataayu Sëriñ Tuubaa bi mu nekkal fi sëriñ bi kàddu yi yam njëkkoon a yëkkati wax ko wax ne bi ma agsee amu benn xalaat wala yenn yitte lu mooy sumb daara jure ji nga xam ne Serigne Touba moo ko naaroon mu desoon fi ci ay naaram mooy yitteem bi jëkk mooy yitteem bi mujj kon nag dañuy sant yàlla bu baax ndax bu yàlla defee muy bëgg-bëggam am ci taw feexe sëriñ bi it mu dem ba liggéey ba toll ci li ci ëpp àgg ba bu jeexagut it waris na ko mën a tàmbali ba ci weeru octobre bi ci lañ ko war a mën a tàmbale sëriñ Ahmadou Badoy mi nga xam ne moom la sëriñ bi teggoon loolu ci loxoom lépp bañ saytu mboolem liñ ci war a def ba ubbi nañ ñi nga xam ne ñooy war a dugg ci biir daara ji dana ko gën a leeral kon sëriñ bi nag li jiitu ci kàddu yi mooy sant rek sant bokk julli di sant bokk taalibe bi di sant itam ñu bokk sëriñ Tuubaa ak mboolem ñi nga xam ne seen maam ñu ñoo àndoon Serigne Touba ba yoon wi agsi fii mu agsi tey ci naalu réew yi nga xam ne Serigne Touba boo demee ci Matlabul Fawzayni daa waxoon ne li tax mu sanc dëkk bi mooy daw nit ñi ak daw li nekk ci loxo nit ñi wax ne li tax mu sanc ko mooy li taalum wa taalim wax ne mu ñaan suñ bo mu nekk maskana taalim waaye mu nekk maskana taswib waaye mu nekkit mashkanal irsad kon loolu lépp mooy tekki ne sëriñ bi dëkk bii di Touba yéeneem jëpp moo doon mu nekk dëkkub xam-xam ni ko sëriñ bi waxe woon ca ba muy woote liggéey bi ci kër sëriñ Touba gi wax ne fu ñu déggee jàngukaay yu mag yi bëgg na bii bu leen jiitu tam bu mu leen yées kero ba muy teg xeer wa ci loxoom yu tëddee ànd ak njabootu sëriñ Touba gi gépp kenn desut mu ñuy fàttali ba sëriñ bi di teg xeeru njaarim ba waaye kaddu yam ci waxoon ne muy ñaan liggéey bu laal suuf mukk loolu di wax ju xóot joo xam ne mel na ne sëriñ Tuubaa gàttandu na ko ci ndax lii kat université doonut du yomb doonut tam liggéey bu tuuti waaye ñëpp bàyyi xelit ne lam waxoon daaw jég daara ji bu demee ba àgg itam nañ xam ne li koy saytu ak li ko yor mooy ëpp la ca la ko tabax kon lool itam nit ñi nañ xam ne ab noflaay amu ci ne takkaat la xasaay rek gën cee góorgóorluwaat ba liggéey bi lépp sotti waaye itam la ko yor itam ñoo xam ne lépp ñoom la war taalibe la war te xam ne kuy dàkk bëgg Sëriñ Tuubaa dara jiitu ko ci loo ko war a dàkke ndax xam ne sëriñ bu jugee ba nag ni mooy jiitu ci ab ab liggéeyam Cheikh Ibrahima Fati xam ngeen. fi ko ci sëriñ bi féetale woon ak sëriñ Mbacke Bousso ak sëriñ Daam Abdourahmane kon sëriñ Touba loolu moo doon ab liggéeyam daana wax ne waxtaanu ma damay jàngale kon lii bu demee ba agsi fii tey te Cheikh Mouhamadou Moustapha mi ko fi njëkk nekkal xam ngeen ci lu wér ne euh, waxuma taxawali daara waaye moom ci boppam daana jàngaleel boppam ba am na ci ñëwar sëñ bi ñoo xam moo leen jàngal kon Cheikh Mouhamadou Fadil bi mu inauguré jumaa ji mook daarul maarif al islamiya ñoom la ubbeendoo kon loolu nañ xam ne kon mooy seen dite ba ci lii somb yi nga xam tey Cheikh Abdoul Ahad Mbacké yàlla def na ci loxoom la ko tàmbale woon ndax sëriñ bi xam ngeen ne yónnee woon na Égypte yónnee woon ci réew ba Màkk sax ngir ñu jëlee ko fa ay téere ba ci Mauritanie yoo xam ne lim ci mooy dane bu daa sama daara ji noppee fenn fu ne waaye dafa jugee di fi jàng si kon loolu lu yàgg na moo taxoon Cheikh Abdoulaye defoon maktaba bi boo bëri ko naa laa daara ji Cheikh Abdoul Khadir itam Serigne Cheikh doomam wax na ma ne fukki weer benn yi lim fi am ba mu koy tàggu da ko ne sama liggéey bépp de li ma li ma ko fas yéene jëme mooy jàngukaay bii Serigne Touba bàyyi ma fexe ba àggale ko yàlla suñu boom dogalu ko. ba yàlla def Cheikh Saliou Mbacké ñëw àggale woon liggéey bu njëkk ba bañ ubbi daare alxuraan ji ak daare majalis tegoon ko ci loxol suñ Moustapha doomam ak suñu Abdoulaye suñu son ak suñu jili ba yàlla def as cheikh Mouhamadou Lamine Bara ñëw mu bokkoon ci ay naalam ba yàlla def na ku ne nag dala suñ borom cërale ak la nga xam ne sa bàggute fa sëriñ bi ñëw sëriñ Touba gàttandu ko ci gunge ko ci mu wax ne amu jënd yi tëjul ji kon nag boo ci yàlla defalee tawféex ba liggéey ba toll fi mu toll kon tawféex la joo xam ne jàpp naa ne bisu bisum ndam la waaye bisub ndam la ci lislaam bisum ndam la ci sëriñ waaye bis la boo xam ne moom mii kat tey bu fekkonte ne sëñ naa puukarewu man istaa ne bisub puukarewu la na ko sëriñ bi waxoon ca njaarim kon na xam naa ñu xam ne. ubbiti gi daal kon jot na ñu teg nag loxo lo kàddu gi ci loxo la sëriñ Ahmad Bado bi mi nga xam ne boo ko sëriñ bi wax yëkkatee daa waxoon ne dama leen cee fekkoon ci liggéey bi moom ak waa daayira Rawdu Rayaahiin ñu du ko taxaw ñu taxaw mboolem lu jëm ci xam-xam ci dëkk bi yàlla def mu fekk leen ci ñëw ànd ko ak ñoom jëlaat liggéey bi yëpp teg ko ci seen loxo ñu def ci taxawaay boo xam ne amatuñ guddi amatuñ bëccëg bàyyi nañ seeni liggéey. bàyyi seen seen waxtu lépp jëme ko ci liggéey bi ngir bëgg xam ne bu sëñ bi xolam seddee la mu bëgg mu am kër ñëpp ñoom am luñ bëgg kon nag ñoom yàlla defante ne ci tawfeex ak ndam ndax liggéey bi ko xam fi mu jaar ba si ci lu yomb ndax mën xaj bi nga xam ne def nañ ko lu kawe la loo xam ne yaakaar naa boo ko yóbboon si yeneen dëkki lislaam yi itam ñoom dañ jure waaye fii dootuñ jure it kon ni ko sëñ bëgg woon amee na noonu kon nag ñi ngi ñaan ci barke Sëriñ Tuubaa yàlla ko fi suñu borom bàyyi ba naar wi lépp sotti ba xelam dal ci ni ko waxee woon ndax nee na balaa sumba dara université bi day àgg ba xelam dal ci ba yoreen wi lépp leer ci moom mu dooru sumbaat leen kon nag loolu lépp yàlla na sotti ba mu sumbaat leen ci kanamam te lépp mu fekk ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa wa baraka ala ashraf al anbiya mursalin sayidina wa moolana muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa xeyra xadimihi ajmain asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi yëkkati sunu kàddu di ci jiital ab nuyoo bu tedd bu sell bu kawe akub ziyaara jëme ko ci Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ñaan sunu borom bàyyil na ko fi te may ko wér ba lépp lu mu yéene liggéeyal sëriñ bi mu mën koo def ni mu ko bëggee te nu ko ak moom di sant sunu borom bu baax a baax ci jataay bi muy jataay boo xam ne dañ koo def ci ndigalul sëriñ bi waaye yëgle tàmbalik liggéeyam bu tedd bu sell bii muy liggéey boo xam ne liggéeyub sëriñ Touba la liggéeyub sëriñ Touba mooy liggéeyub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy liggéeyub lislaam mooy liggéeyub jullit yëpp sëriñ bi waxoon ne ca kàddoom yi tedd ya dafa bëgg daara joo xam ne dafay tàmbalee ci kii dal baasin ba ca njobaxtan la loolee nag ban ko xalaatee mu am taw feexi mu duñu ci liggéeyloo waxtu wu ñu tasee dañ sant sëriñ bi ñaanal ko sant sunu borom sant sëriñ tubaa ndax sëriñ tubaa liggéey loo la ñi seen aajo faju ñëpp maa ñu ñëkk ñu baax ñi dañ doon dàkk bëggu sëriñ bi nu am taw feexi nag taseeg sëriñ tubaa mu ne nu lii laa bëgg te nii laa ko bëggee saa buñ jotaay buñ toog rek loolu la ñuy tàmbalee sunuy kàddu soog tàmbalee waxtaan loolee nag sëriñ bi ba ciy liggéey nu xalaat ne kat li nu sëriñ bi wax mën haj la mën haj tarbawi mën haj tarbawi islaami muridi wala mën haj tarbawi islaami bu cheikhul xadim buñ ko doon wax ci waxinu gone yi ni ñu déggee mooy modèle wala système éducatif boo xam ne dafay indi njàngulem lislaam moom Serigne Touba bu ñu waxee Serigne Touba mooy njàngalem yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nag ku koy liggéeyal ci li ngay tàmbalee mooy daaree alquran ndax alquran mooy léppam lépp sëriñ bi mooy alxuraan moo tax ñu waajal daare alxuraan yoo xam ne gone gi dafay jàng di mokkal alxuraan foofu la ñuy tàmbalee mooy li njëkk a tàmbali incha allah li ci topp mooy njàngum xam-xam majalis ni ñu ko daan jàngee fii ci dëkk bi ci jumaa ji ak ci daara yu mag yi kër seen choy bu ak jumaa daara yu mag yi muy njàngum majalis bi ci topp mooy bi kawe bi li ñu tuddee kulliya wala UFR buy jàngale wàllu dirasat islamiyya wala xal arabiya boobu mooy ñaareel bi ñeenteel bi mooy fi ñu jàngalee mbirum kër docteur yooyu nag dañoo xool lu ci nekk mu doon loo xam ne mënut a ñàkk alxuraan ji moom mooy mooy yëfi sëriñ bi mooy ndam bi xam-xam mooy cosaanul bépp xam-xam bu am njariñ moo tax moo ciy jiitu dëkk bi itam daara la ni ko sëriñ Cheikh Mahamadou Bachir wax léegi wajalu daban maskana taallumi wa mawdia al fikrati wa tafahumi wa maskana al irshadi wa taalimi wa maskana taswibi wa tafhimi wajalhu maskana min zulam li nuuri wakfi anhu kulla man zalam loolu moo tax eh, daare alxuraan ji moo jiitu mooy lépp itam daare ji nag sëriñ bi daf koo def ay da séddale mboolem kër yu mag yi muy njabootuk sëriñ bi ak bokki sëriñ bi ak seex su mag si nga xam ne ñëpp dañoo gàddaa yoon fekk si sëriñ bi fu ne sëriñ bi dafa dugal ab cër ngir taal ba sëriñ bi taaloon mu fëggeewaat gilin ya jël ci ay donga ñu yaroo fi jàng fi ñu yar leen tëbb ko barkeloo ko ci yar bu ma njëkk ba nga xam ne moom la sëriñ bi mag ña mooy loolu mooy daara alxuraan ji bi mu noppee itam am na ci lim boo xam ne dañ koo jagleel amatul muridin nga xam ne murid yëpp ñoo ko bokk loola nag moom tàmbali nañ ko ak loo xam ne itam amatul muslimin ndax ni ma ko waxee léegi Serigne Touba moom ñëpp a ko bokk képp kuy njabootu yonent bi sallallahu alayhi wasallam njabootu Serigne Touba nga kon alali Serigne Touba jullit yëpp ko bokk moo tax cër yooyu nag nga xam ne Serigne bi daf ko séddale dem nañ ci seeni borom ba jox leen ko li nga xam ne nag mooy eh, li nga xam ne moom lañ jagleel amatul muridin dañoo ubbi ab barab ci jumtukaay yu xarala yi yoo xam ne nit ñi mën nañ caa dugg di bindu waaye foofa macha allah sëriñ bi gis nañ ne nit ñi yàkkamte nañ ko lool nit ñi bëgg nañ ko lool la ci bindu noonu ñemewuñu wax sax lim ba fii mu toll nii waaw li nga xam ne itam mooy kulliyat drasate islamiyya bi lépp lu ñu daan jógee di ko jàng ca université yu mag ya nga xam ne sëriñ bi ba mu tuddee wooteem bi waxoon na ne daa bëgg bu ñu doxee feek ñetti téeméeraat mu tolloog ñooña mboolem lu ñu fa daan jàng ci xam-xamu diine dañ koy jàng fii waaye dañ koy jàng nag ni ko Serigne Touba jàngalee dañ fiy jàngale itam ñi nga xam ne mooy mag ñu baax ñu nekkoon ci réew mi di bokki Serigne bi te nekkoon ci lislaam ñoom itam dañ leen fay jàngale seen i xam-xam ngir gone yi fi génn ëllëg xam diine xam Serigne bi waaye xam réew mi xam may yi nga xam ne ak baax yi nga xam ne sunu borom def na ko fii ci réew mi bañ xam ne ba borom bi subhaanahu wa taala di séddale mbaax fàttewunu danoo jàpp ne sax danoo beral loxo te sëriñ bi waxoon na ne wala tuxassis fadla rabbin qad ala li di taxaddumin faqat fatajhala attallu qad yabdoo amaama alwabli wal fadlu lil wabli laa li talli waaw sëriñ bi waxoon na ne falay suyu jubu sawaadul jismi adamu fawzin bi azimi al qismi loolu lañ bëgg nag ndaw ñu yóbbaale ko xam li nu sunu borom defal ndax nit lu mu xamul du ko mën a téye du ko mën a jàpp kon moo tax kulliya dirasatil islamiyya bi dañ fiy jàngale taarixu Sénégal waaye di fi jàngale sëriñ bi am na fi itam ab jàngukaay boo xam ne mahad at tasawuf wa dirasatil muridiyya lañ ko tuddee nga xam ne moom dañ fiy jàngale tasawuf waaye ni sëriñ Tuubaa jàngale tasawuf teg ko ci alfiqhul maliki wal aqida al ashariya mooy jiitu alfiqhul maliki wa tasawuful junaydi ci loolu leen ko bëgg a tënk ñetteel bi nga xam ne mooy ñeenteel bi ci li ubbi mooy daare alquran ji majalis bi kulliyat dirasatil islamiyya wal lughal arabiyya ak fi ñuy jànge mbirum kër docteur loolu itam dañoo waxtaan ak ñu yor wàllu kër docteur ci dëkk bi ñu xool liñ gën a tumranke ci wàllu googu ñu bëgg a tàmmul li tàggat ndaw ñooñu ñoo xam ne njabootuk sëriñ bi la ñu doon di dëkk bi ñu jàngal leen ko ci njàng ma gën kawe ngir ëllëg ñu mën a tàmbalee jàpp ci dëkk bi waaye mu yaatu ba ci région bi ci réew mi ba ci Sénégal ba ci àddina bi yëpp loolu itam bu noppee day jàppalante ak ak hopital bu mag bii ñu fi defal Cheikh Ahmadul Khadim bii fi nekk nga xam ne moom day daal di daal di àgg ca kaw rek fa université yu mag yi gën a àgg ndax loolu daa bok ci li mënta ñàkk ci njàng mu kawe mi bu noppee nag incha allah ci addi ci kanam tuuti nag ñu tàmbali nag di ci topp njàng yi ci des ndax niñ ko xalaatee dañoo jàpp ne garab la garab gi mooy Touba nga xam ne asaala wal muasara bi ñu sëñ bi daan wax reen yi day sax ci lislaam di njàngalem sëriñ Tuubaa car yi nag di màgg di màgg nag di law bépp xam-xam bu am njëriñ rek mu mën koo ñoddi indi ko ci dëkk bi indi ko ci réew mi indi ko ci njabootu sëriñ bi kon ñu ngi wàcce sunu kàddu bañ a guddal di ñaan sunu borom bàyyil nu fi sëriñ bi di sant sunu borom di ko santale moom itam sëriñ bi ci jëf ju màgg ji nga xam ne tàmbali na ko ñu ñaan mu yeggale ko ba tegaat ci yeneen yu baree bare bari tàmbali bi nag dañuy tàmbali nekk ci biir rek di doxal liggéey bi sëriñ bi nag mooy soobu mooy seet waxtu wu ko soobee ak ñum nu mu ko soobee mu yëglee ko noona wootee ko noona ngir ubbite gi waaye dañoo tàmbali rek nekk ci liggéey bi di dox rek di dox rek bu ko defee nag sëñ bi nag moom ci cadre ci coobareem waxtu wu ko soobee rek yëgle ga ak woote ga moom moo koy defal boppam ñu ngi sant di gërëm tey ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér salaamaaleykum wa rahmatullah kon mbokki taalibe ñoo dégg kàddu leeral yooyu mu jëm ci liggéey bu tedd bii nga xamante ni Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké yëkkati na ko ñu di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér naal yeneen dolli ci lépp ñu ànd kook moom ci sàkku ngërëmal Cheikhul Khadim wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu